tey ñi moom lañu wax te liggéey te ñoom ñu bokk si jiiñ ko kilifa yooyu alaaj ñu ànd um sàmm yoon fal ndey ci réew boo ko si xeetum dëggaay El Hadji Oumar Pène ndëbbaal yoon fal saltige boo ko si xeetum di dégg El Hadji Sall Dieng yoon loolu tànn saltige boo ko si xeetum di dégg Seydou Gueye yooyu ba tànk ak jaraaf boo ko si xeetu fonk boppam dundu benn yooyu ba tànk ak jaraaf boo ko si xeetu waneen mot ba set yooyu ba tànk ak jaraaf boo ko si xeetu fonk boppam Abdoulaye ba tànk ndox tànk certifié boo ko si xeetu sumbaar ñoo ñoo da ngeen xam ne biir xeet yoo ak kilifa taxawaay yoo njëkk leen gërëm leen sant ñu ngi gërëm di sant aussi Alaaji Maam Ousmane Mbeng yor euh, ndogu tànk ba pala président des frais yoo bokk si xeetu fonk bopp ñuy gërëm aussi délégation bi Cheikh Mansour Diouf suñu rakk suñu doom suñu jarbaat envoyé délégation bi ñu leen di gërëm ñu leen di sant ñuy gërëm di sant monsieur Maguette Touré bi nga xam ne mooy le directeur de la francophonie moo fi teewal suñu xarit Mbagnick Ndiaye nekk ministre du gouvernement bi ñu ko lekku ak ay Diouf Sarr Mbagnick nag lii nga xam ne ko fonk la parce que ñu koy wax si wàllu lëbu waaye mooy si wàllu séeréer yi xam ne moom moo ko def tey kon nag kooku moom fexe na boo xamante ni chaque fois bu ko ñëw masa ñëw lu yomb organisé si wàllu day ñëw ñu ngi gërëm sant aussi technique parce que xeet yi nga xamante ne ñoo nekk ci Yoof te bokkuñu ci Lebu maanaam séeréer yi joolaa yi ak ñeneen ak ñeneen ñun taxaw seen représentant yëpp invité leen pour ñëw saa pour wane ne Yoof dafa doon su déwu suñu maam ku fi ñëw wax na ko wax sax den ba jàngal ñu njëkk ñi jox la gaal bu ñuy bàyyi di ànd ak yow bu ñu dem soo di ànd ak yow ñu may na seen doom bàyyi may seen tabaat kon nag nee na wax li yëpp bëgg ak li yëpp bañ Lamine doy na ñëw si kanam te ne ñu yegg pour gërëm ñuy jàppale si bés bi avant jox kàddu gi imam ratib El Hadj Moustapha Saba pour que moom mu jëlee les enseignements dafa ñu ay ñaan lii taxaw ñu woon soxla ñëw fii yàlla na yàlla defaral yàlla na yàlla dugal si tur yi yàlla na yàlla dugal xéwal yi alors yàlla bu suñu seytaane mu subax balaa Lamine doy yëg seen nga ñëw ñi nga xamante ni ñoo jàppale ñu ak xeeti yow comme mondialisation bi ñëw fii waaye ñu gërëm bu baax ñu yor mondialisation bi muy laaj bi doon ak Maodo ak ñi leen doon jàppale ñu tàcc leen vraiment lay doon di bon travail Lamine lay affaire. gannaaw bu ñu sant yàlla te ñu ci yow bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mbooloo bi yëpp ko jaaral ci ñi imaam jotal leen ko ma mbay lay sa wàccuwaay monsieur le ministre di Yoff ñu lay jox sa wàccuwaay yu mat sëkk bu loolu di sant yàlla mi nga xam ne dañu xéewale ñu bokk ci ñi nga xam ne ñoo doon xalaat lii tàmbalee ci bismillah rahmaan rahim yaakaar ne ni ko joxe ci alhamdulilah rabbil alamin dolli di ñaanal yàlla mi nga xam ne lii ñu tey muy journée adoption kayit bi nga xam ne moom la ñu bind def ko muy outil boo xam ne moo ñuy jariñ tey ak suba bàyyi ko noonu suñu ay ñi nga xam ne ñooy suñu sët pour le développement de Yoff mën na nekk sax développement wu adduna bi yëpp yàlla jig Yoff ba jig ñeneen bés bu mel nii bu koy def di ko sumb nga xam ne accès nga ci bés bi di nga ne am nañu la jàppale. ñooñu nag war nañu gërëm leen sant leen ñu tàmbalee ko ci ñi nga xam ne ñooy xeet bi ñu tàmbalee si ñoom xeet yi ñoom dañ ne balaa ñu ci ndimbal ñoom ne seen loxo bu mat sëb balaa ñu seen di kanam comme ñoom ñoom ñoo xawle li ñu ne naan lu waay ji na ci fekk loxoy borom moom loolu la def ba li nga xam ne muy matériel muy alal daf lay daf lay ko si ba ñu commencé liggéey li ñu jógee ci loolu dem nañ seeti ay nit yoo xam ne wax dëgg yàlla dañu baaxoo di dimbali ñu bëri yoo xam ne dañu nekk ay yoo ay ay yoo xam ne ay jiw la dafay def ci dëkk bi pour le développement du village muy ñu ñëw ak rajo Mass Mbaye bi ñu ko gisee wax dëgg yàlla dimbali nañu kontaan ci bés bi def ci àllam ñu fa jógee dem nañu seeti monsieur le maire monsieur le maire jërëjëf def naa ciyengen ko tambale ko mo na ko ci image bay ak ni ci top yeb tam ngeen di liggeel tek bi yalla len japp yalla japp ci li ngeen di liggeel ba yalla defal len borom seen jox bu ñu tegg ci ñom dañ lay ñu seen di apex apex vraiment kenn ko mo aussi kenn ko baye gana parce que apex bu commencé di liggeel yow defna bobu ci le maire sax mo ci le maire c'est pas ça jay bobu mo ci bi apex xaw ma nangam sax mbéyam li ñu doon liggéey lépp daanaka boobu ak is ma ko daan liggéey liggéey xam ne moom gouvernement bi daan def kii war ko def ak maire yi ak is ma ko daan def di ñaanal ak is yàlla may leen euh, kàttan may leen alal dañ leen ko présenté ba ñu ci bëggee fan yoo ñu aw seen yoon. dem nañ seeti euh, Ousmane El Hadj Ousmane Samb muy euh, kilifa relax. moom aussi moom desul gannaaw fa dëgg yàlla ku fi de lu mu ci man dina mu def am na yu bëri yoo xam ne sax du nga seet ko moom mooy wax ne li ngeen def daal bëgg naa ci bu nga ci toll ñëw leen ma kii leen wan moom sax du xaar nga laaj donc moom aussi ni ñu koy ñaanale ñeneen ñi dañ koy ñaanale yàlla xewal ko ak église bi xam ne moom moom la yore yàlla dimbali ko ci mu am ci lu ci raw jox ñi nga xam ne ñooy euh, xeet ku nekk envoyé na ay nit ñoo xam ne ñooy jàpp ci liggéey ñun dañ doon coordonné kese muy Maodo Dieng muy man muy ñoom Saliou Samb ak ñeneen commission organisation moom rek mu liggéey affaire ay commission accueil ñu foon commission sécurité ak yeneen commission ñu foon di liggéey ay membre xeet yi ñoom ñoo ñëw ni ñu taxawee ci léegi engagé woon loolu ñu engagé woon ñu jàpp ci liggéey bi dañu am na ci li ñu wax def ba tey ñu naan ndax réussir na wala réussirul yàlla na yàlla fay. yokk seen xéwal yokk seen am-am yokk seen mën-mën ñun ñëpp yàlla na yàlla sàmm saa yàlla bu baax sant nañ ko fàttali si biir salle bi kon ñu ngi koy jéggalu parce que abdis la muy ko waaw léeg-léeg dañ koy gërëm dañ koy sant bu baax man na sëkk te métti na kuy yéente laajte imaam comme mu tëj laajte imaam kuy maye ak deux heures te bu ñu nee deux heures mooy dix kon nag jàpp yéeneem waaye yàlla mu ngi jàppale ñuy jox kàddu gi imam am na ñu bëri sax yoo xam ne dañu bëgg a kii mais dafa amoon planning de travail planning boobu la ñu def dañu jox kàddu gi imam dafa ñu ñaan. waaw subaar yi dañoo am conférence subaar yi kon xeet yëpp ñu ko defee lool bi nga xam ne xëy na jiitu dafa ñu conférence ñu ñaan xeet yëpp tafsir saaxo lan la wax tafsir saaxo tafsir saaxo mooy def tafsir saaxo tafsir saaxo tafsir kay moo defoon conférence moom moo ko fay tafsir saaxo mooy def le 30 mars conférence bu Soumbali imam kon ñu tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim ñu ngi tëj ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax di fàttali a rek jotaay bi jotaay bu am solo ëpp naa tardé ñu bàyyi xel ne Yoff du dëkku caaxaan waaye dëkk la boo xamee ne dafa am cëslaay bu dëgër moom yow ñu bàyyi xel ne aussi li ñu sumb ni li ko lal mooy ñun ñëpp benn yàlla ñu gëm nuy loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a cosaan baax na bu torop te sax mante ñàkk ci nit day jële day jël ci cosaanam li ko diine may lépp lu ko diineem tere mu bàyyi ko te xam ne da koy lor te yàlla dogal na charte bi du début à gisuma ci lenn loo xamee ne mën naa ne ñu ne li sax am ci kon yàlla ñu yàlla jàppale lépp nag yéen a ko gën a xam kenn gënul kenn lépp kenn moomul kenn ñun ñëpp ay naw la la te lislaam loolu ak naasu sawaasi yéen a tamit nit ñi ñooy yem ka asnaani musti mel ni boo yoree peñe bëñ yi ni mu yemee noonu ne ni nit ñi noonu la ñu ki gën yàlla rek moo xam ki gën ci ragal yàlla la te ragal yàlla yu xol la yàlla nit moo xam li ci xol yi kon nañu jàppalante ñu nawlante ku ne jox cër sama bu kenn xeeb kenn bu kenn xeeb ñaan kenn ku nekk def fatiha wala ne ak nas salaatu fatiha